seen mbokk Abou Taha Mouhamed Alioune Gueye moo ñëwaat ak yéen ci seen jotaayu warattilil Qur'ana tartila ñu ànd di nafar qaayida yi nga xam ne ci la borom xam-xam yi teg njàngum alquran mu wér te doon topp téereb Tuhfatul Atfal tolloon ci buntub ahkaamu nuuni sakinu tanwiin jotaay yi ñu wees ñu gisoon eh, ñett xukmu di woon bu njëkk ba izhaar bu ñaareel ba gisoon nañ ko di idgham ci ñaari wàllam gisoon it bu ñetteel ba di iqlaab ci wenn xaraf yi nga xam ne am na ko ba tàmbali woon a gis bu ñeenteel ba di al ixfa ñu fàttali ni seen jotaa bi incha allah di ngeen ko mën a amee ci eh, ahlul quran point com wala ci compte youtube bi ahlul quran wala la maison du coran كن في طلون ما في برم تيري بدي وخني والرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجب للفاضلي والرابع يعني الحكم الرابع التبنين تلبي من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء موي إخفاء إخفاء نك تولف موي نب بونكي تعرف تي فنجي إخفاء حالة لا بونك تي إظهار ak idgham ndax xaraf yi tax ñu ixfa jigewuñu xaraf yiñ koy ixfa bañ mën koo idgham ci biiram ndax idgham léeg-léeg looloo koy waral ak jige soriwuñu lool tamit xaraf yi bañ koy euh, bañ koy euh, izhaar kon daa nekk ci diggante bi moo tax ñuy ixfa moo tax xaraf yi nga xamante ne dañ koy ixfa di nuun nga sukkoon wala tanwin ci xaraf yi ñeen ixfa bu nu ixfaawee dinga nga yëg ni ak nuun a fi woon waaye du leer nàññ kon leerul nàññ ba nekk izhaar waaye jeexul tàkk tamit ba nekk idgham ci diggante bi la nekk loolu mooy al borom téere bi nee na moom ixfa moom yi eh, nu koy defe ci la des ci xaraf yi ginnaaw bi xuruufu izhaar génne ak xuruufi idgham ak xarful iqlaab la ca des lépp ci al xuruful hijaaya mooy xuruufu al ixfa boobaa kon day nekk fukki xaraf ak juróom nee na ixfa an nuunu saakina wa tanwin ci fukki xaraf yooyu ak juróom waajibun lil faadil lu war la ci kiy jàng alquran kon faadil gu njëkk gi baqiyatul xuruf lay firi waaye faadal gu ñaareel gi qaariul quran lay firi ndax ngëneel li nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuddal na ko xaraf yi moom la borom téere bi tënk ci njalbeeni baati bayt bi ci topp bayt bi ci topp fukki baat moo ko composé ak juróom fukki baat yooyu ak juróom baat bu ci nekk xarafu wa ca njëkk حرف لا حروف الإخفاء تي بنتوب النون الساكنة والتنوين بيت بابي ما يصف ذاثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ذا ظالما صف ذاثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ذا ظالما بني خلي بيت بابي يجي فك بعد لا صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زده في تقا ضع ظالما فكي بعد لك جروم حرف بعد بنك حرف وكو تجي حرف إخفاء كون دا نجيس الحروف الإخفاء مويمي واجلم الصاد والذال الثاء الكاف الجيم الشين القاف السين الدال الطاء الزاي الفاء التاء الضاد الضاء fukki xaraf yi ak juróom mooy xuruful ixfa kon saa bu ñu toppee ci nun gu sukuun nuun gi dañ koy nëbb ci njàngin cim njàngin saa bu ñu toppee ci tanwiin tanwiin gi dañ koy nëbb cim njàngin bu ko defee buñ ci jëlee wenn benn par benn ci xaraf yooyu di ko joxe ay misaal ñu njëkk ci sood ma def leen ci ko joxel misaalub nuun gu diggu ak gu cate yépp misaalub nuun gu diggu ak nuun gu cate sood topp ci ma des na ko joxe ndax waxoon nañ leen it eh, bokk na ca ya eh, woon nuun ak tanwin nuun gu sukkoon ak tanwin ca suñu bind wi njëkk ya mooy nuun gu sukkoon mën naa diggu mën naa cate bu dee tanwin moom cate kese la man du kon misaal yi ñu joxe ma ni ma naa joxe misaalum nuun gu sukkoon gu diggu xarf fa topp ci waaye tamit kadalik ma des naa joxe nuun gu sukkoon gu cate gu nekk ca catul baat xarf ixfa topp ci nga xam ne xarf ixfa ba kon mooy door baat ba ca topp bu ñu jëlee xaraf yi bi tartib comme noonu ma ko li limee woon benn bu nekk dañ la joxel kon misaalum nuun ci ñaari xaalam yooyu mutatarrifa mutawassita joxel ko tamit misaalum tanwiin ci xaraf bu nekk bu ñu jëlee saad mën nañ ca joxe misaalum yansurkum yansurkum da ngay gis ni nuun gi dafa sukuun sood topp ci mu nekk ci benn baat nuun googi atteem mooy ixfa kenn du ko izhaar kenn du wax yansurkum kenn du jël nuun gi tamit duwal ko ca sood nga bu baa idgham lay doon waaye dañ ko fi bàyyi ba pare nëbb ko ci njàngin nga xam ne du fes du leer jàng ko ci diggante izhaar ak idgham yansurkum noonu lañ mën a amee nuun gu cate sood topp ci bu dee tanwin it tanwin nga dañ koy ixfa lu mel ni riixan sarsara riixan sarsara tanwiinuk xaagi dañ koy ixfa ndax saad gi sarsara kadalika bu dee lu mel ni xarfu zaal moom it mën nañ ko joxel ay misaal bu njëlee baatu munziru munziru nuun dafa sukun zaal topp ci ñu bokk benn baat buñ nekk attam nun gi mooy ixfa dañ koy nëbb ndax zaal xarfu ixfa la ci bunt bi wala min zikrillah min zikri nuunug min gu categoo gi dañ koy nëbb lu tax daal gi ci zikr mooy topp te day yor atteb ixfa kadalik bu dee tanwin lu mel ni siraan dhalika siraan dhalika tanwinuk an dee su ko leeral comme ni ma ko waxee léegi an dee su ko jànge noonu waaye dee su ko idxaamit dañ koy jànge ci diggante bi te ko jàngee ci diggante bi loolu yi mooy ixfa ri siraan dhalika lu tax mooy zaal gi ci topp dari xarfu ixfa ci bunt bii bu njële lu mel ni saa kadalik mansuura mansuura nuunuk mansuura dañ koy ixfa ndax saagoo gi ci topp kadalik lu mel ni min samara kullama ruziqu minha min samaratin rizqa min samaratin rizqa noonuk min dañ koy ixfa ndax sauk samara ma ngoog bu dee tanwin tamit comme jamian summa yunji jamian summa tanwin googu ci jim gi dañ koy ixfa ndax saa gi ci summa buñ jëlee kaaf moom it saa bu jiitoo wala bu toppee ci noonu nga dañ koy ixfa saa bu toppee ci tanwin tamit tanwin nga dañ koy ixfa mën nañu joxe misaalum yankusuun yankusuun dañ koy ixfa ndax kaaf gi ci topp wala lu mel ni min kullin zawjayni min kullin zawjayni baatu min kullin nuun googu nekk ci min dañ koy ixfa ndax kaafu kullin والمن عادا كفروا جتنوين عادا كفروا كاف غوغي موتخ نيو اخفاء تنوين عادا كاف من حروف اخفاء النون الساكن التنوين كذلك بودي جيميت من نجي جوخ مثال فانجيناه أن انجيناه نونك نون جوجو topp ci hamza gi dañ ko ixfa ndax jiim gi topp ci moom wala lu mel ni in jaakum in jaakum noonu in foofu dañ koy ixfa ndax lan jiim gi nekk ci jaakum moo ci topp bu dee tanwiin it kadalik lu mel ni qawman jabbarin qawman jabbarin tanwiin gi ci qawman dañ ko ixfa ndax jiimuk jabbaariin kadalika shiin man nañ ci joxe misaalum manshura manshura nuun gi dañ koy ixfa ndax shiin gi ci top wala lu melni fa man shaa wala lu melni min sharri yeb yëpp da gis ne dañuy ixfa nuun gi dañ koy neub ndax shiin mo ci top te shiin ci xuruful ixfa la bokk kadalika shin moom mi bu toppee ci tanwin dañ ko ixfa ba tey lu mel ni ala kulli shayin shahida shayin shahida gis nga tanwin gi ci hamza gi ci shay dañ koy ixfa ndax lan shin moo ci topp mooy shin gi door shahid kadalika xarful qaaf moom it dañ koy ixfa wala dañ koy ixfaal nuun bu ko jiitoo di ko ixfaal tanwin tamit bu ko jiitoo lu mel ni yunqiduun yunqiduun nuun googu dañ koy ixfaal ndax xaaf gi googu ci topp wala wa in qiila wa in qiila nuun googu dañ koy ixfaa ndax xaaf gi ci qiila wala lu mel ni ci tanwin alimun qadir عليم قدير تنوينك عليم دنكوي إخفاء دنكوي نب دخاف جي تطب تبات قدير كذلك حرف السين لملني ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية نون غنيار الغوغ سكون تباتو ننسخ دنكوي إخفاء دنكوي نب لطخ موي سين موش تطب كذلك لملني علم أن سيكون علم أن سيكون أن سيكون نونك أن دنكوي نبتشم جانجن كم نمكو جانجي نخسينك سيكون كذلك بودي تنوينت بودي سين توبي دنكوي إخفاء دنكوي نب لملني رجلا سلما لرجل رجلا سلما رجلا سلما, رجلاً سلماً تنوين لام جيتي رجلا بنكو إخفاء نخسين وكسلما كذلك حرف الدال بطبة نون سكون نون غدن كو إخفاء لمنلي أن دادا أن دادا دو أخفف أن دادا نخبه با لنغا جانج إظهار لا تحرف حرف الدال دو حرف إظهار تبنتبه دوكو إدغام تمت ndax xarfu daal du xarfu idgham ci bunt bi kon da nga koy jàng ci diggante mooy da nga koy ixfa ndax xarfu daal min xurufi ixfa yi wala lu mel ni waliman daxala waliman daxala bu dee tanwin tamit kadalik lu mel ni qinwaanu daaniya qinwaanu tanwiinu qinwaanun dañ koy ixfa ndax daal gi door daaniya xarfu taa kadalik lu mel ni yantiquun yantiquun dañuy ixfa nuun gi ndax taa gi ci topp wala lu mel ni mintiin mintiin dañuy ixfa nuun gi ndax taa gi ci topp wala lu mel ni bu dee tanwiin صعيدا طيبا صعيدا طيبا daal gi dafa tanwin daaluk saidan dan tanwin googu dañ koy ixfa cim njàngin ndax taa googu tàmbali tayiba xarfu ixfa la bu dee xarfu zaay tamit kadalik lu mel ni anzala anzala wala lu mel ni min zawal min zawal دانيي يعني اخفاء نون يو يو يي نخ حرف الزاي ما تي توب تا زاي دا فا بوك تي حروف الاخفاء تي بونت بي بو ديتا ني تامن كذاك لو ملني يوم اذن زرقا يوم اذن زرقا تنوين الذال تي يوم اذن ديسكوي اخفاء نخ زاي جي تامبل زرقا كذلك حرف الفاء لو ملني انفيرو infiru dañuy ixfa nuunug infiru ndax faagoogi ci topp wala lu mel ni wa in faatakum wa in faatakum dañuy ixfa nuun gi ndax faagi bu dee tanwin tamit kadalik comme xaalidan fiiha xaalidan fiiha tanwinu daal tanwinu daal dañ koy ixfa ndax faagi ci fiiha faagoogi moo ci topp كذلك حرف التاء لمن ينته ولا من تحتها من تحتها نون من دنك إخفاء نختاء من حروف الإخفاء بديت نون تمت لمني جنات تجري جنات تجري يعني قسم إخفاء تنوين جنات ndax taag yi ci topp di tajri taawuk tajri xarfu daad kadalik bu toppee ci nun dañ koy ixfa lu mel ni manduuda manduuda waaye lu mel ni in dalaltu in dalaltu nuunug in dañ koy ixfa ndax daad gi ci dalaltu bu dee tanwin tamit lu mel ni qawman qawman daalliin tanwiinug man dañ koy ixfaa ndax daat gi ci daalliin kadalika daa bi xaraf bi ci mujj ci xuruf l ixfaa moom it bu ko nuun jiitoo dañuy ixfaa nuun gi lu mel ni unzuru wala min zahir bu dee tanwiin tamit kadalik lu mel ni zillan zalila zillan zalila kon gis nga ni xaraf yooyu mu limoon ci suuf daatanen kam jaada shaxsun qad sama dum tayiban zid fi tuqan da zalima xaraf yi mu limoon ci baytu boobu nga xam ne ñoo tàmbali baati bayti bi wu ci nekk jox naa la ci bu fekkee ni daa jiitu noon noon gi dañ koy daa topp ci noon kon noon gi dañ koy ixfa bu fekkee ne tamit dafa topp ci tanwin tanwin gi dañ koy ixfa suñu jotaay bi ci lañu fii lañu ñu kon suñu tolluwaay bii lañu ñu àgge ci eh, jeexantalu buntub ahkaamu nuun as-saakina wa tanwiin nekkoon ñeent ñu gis ko ci suñu jotaay yi wees idhaar waxoon nañ ko ak ay xarafam juróom benn xaraf laam am mooy dëkk ci put hamza ha ayn ha ghayn xaa idgham waxoon nañ ko ak ay xarafam juróom benn xaraf laam yarmaluna ñetti yi yi kon di ànd ak xunna yan mu ñaar duñ ànd ak mooy laam ak raa yooyu di ànd ak xunna charte mooy nuun gi ak xarafu idgaam buñ bokk baat gisoon nañ tamit iqlaab benn xaraf la am mooy baa saabu bu ci nuun wala tanwiin dañ koy xal bu jànge ko miim mu ànd ak kadalika nii lañ gisa ixfa ci fukki xarafam ak juróom ak xaraf bu ci nekk misaalam kon yooyu mooy axkaamu nuun as saakina tanwiin incha allahu rabbi suñu jotaay yi di ñëw ñu dugg ci baneen buntu ci téere bi lii mooy li nga xamante ni moom leen Abou Taha indiloon Mouhamed Alioune Guèye ngeen mën a suivre mën a toppee kii bi incha allah ci ahlul quran point com wala ci compte youtube yi ni ma ko doon waxee ci njalbeen ahlul quran wala la maison du coran asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu الله رتل القرآن ترتيلا